yéen kaay yeeg ngeen jëf coow ak mbamb buñ doon rey loi d'amnistie bu Macky Sall bi ma nga yowmal xiyam l'observateur nañu loi gi Macky Sall yëkkati ne dafa bëgg a seral xol yi tàng ci réew mi dënn yi jóg ci géopolitique bi loi bi li mu tàngal ci ay xol ci réew mi kenn xamul mu toll bokk ci ñoom ñu loru woon ci minibus tata bi ñu fi taaloon ak ay cocktail molotov ca yaraax ci ñooñee ñi ci l'observateur dajal ñoo ngi koy xamal ne ànduñu ci loi d'amnistie bi tey ànduñu ci ëllëg kenn ci ñoom di Modou Gueye ci l'observateur ne ay lakk-lakkam wéragul sax ñuy wax waxi amnistie ak di wax naan dañoo bëgg baal ñi taaloon bi keneen ku ca bokkoon di Khady moom nee na baalewul tey baalewul ëllëg tey ci àllarba ji Sud Quotidien nee nañu ci la député yi war a ci procédure d'urgence loi amnistie gi lépp nag yéenekaay bi gis na ne mi ngi aju ci loxoy député yi les députés face à leur responsabilité noonee la ko journal Sud Quotidien xëy binde ci xëtamu njëkk la Sénégal jàpp ne moo am ci loi d'amnistie bi dil bu dox ci diggante waa APR ak waa PASTEF réew mi quotidien nañu loi d'amnistie gi ñu jaabaajonge ci réew mi ñi ci àndul bari ràññee nañu ci ay politikat yu nekk ci réew mi ràññee ci ñu bokk ci société civile gi ci réew mi li ñu gis ci loi bi nee nañu du dara lu dulub scandale Vox Populi nañu projet de loi bi jëm ci amnistie tey jii la ko war càmbar ci assemblée nationale ci plénière waaye bari ànduñu ci loi bi waa parti démocratique Sénégal defa communiqué ne ñoom waa yeewee askan wi fu ñu fare rek ñoom fa la fare député yu parti Pastef gawoon vox ne nañu ñoom neutre gi la may démb defuñu ca dindiwuñ ca mu di ab taxawaaye ko doxalin woo Walf xëy na ci defub taxaw seetlu radicalité ba ci neutralité ñoom waa Pastef seen jëf joojee la journal bi gis ne jaaxal nañu bari Birahim Seck ba forum civil di leen wax ñoom waa Pastef ci féewaloona xaajaloona ñii di waa Pastef sës rëkk ci miir bi ñoom waa kër Ousmane Sonko yi la mandat nee nañu seenu doxalin kenn xamul lu muy nuru dara ci leerul journal bi mi ngi ñuy baaxit ay kàddu Ousmane Sonko yu muy leerale ne demandé dara négocié dara te caaxaan yi gaañe nekk yëngalu ko li yëngu ki ko yëngal di Macky Sall Le Quotidien mi ngi ñuy wax ne loi d'amnistie gi wéet na ci lool ne député yu Pastef yi démb bi commission Yeewi def rek ñu ànd ci ak ñoom le témoin mel ne ku naan ñu kon nag ñoo ngi déglu ñoo xam ne kenn xamul lu ñu bëgg ndax démb bi commission bi doon daje gis nañu fa ay député yu bokk ci Yeewi askan yu toogoon téye seen bopp te ñëpp xam nañu ne loi d'amnistie bi bu weesoo force de défense et de sécurité yi ñi bi gën ëppal njëriñ ñoom waa Yeewi lañu kon bu ñu ne dañuy seleng lu ci yëf dem bay maye neutre li muy nuru mooy bëgguñu Ousmane Sonko war a woote tey ci assemblée nationale direct ci mi ngi ñuy wax ne ku ko rate rate nga rëy bésub tey bi bés la bu nar a miti ci péncum ndaw yi réew mi njiitu réew mi Macky Sall enquête dina nañu siisir na waa conseil constitutionnel ngir laaj leen lu ñu xalaat ci conclusion yu tukkee ci dialogue national bi conseil constitutionnel tontu ko ci tontu lu gaaw fast track la ko defal juróom-ñaari sages la waxoon ci datub élection yi waxoon ko ci Cees naam amoon ñaar fukki ak juróom moo jël ak fital fital boppam moom waa ji ab sandarma la bu cosaanoo ca kees ne woon en service ca LG fetal gi ñu ko joxoon ngirub liggéeyam mu di arme de service am fital googee la jël sox ko tiire ko boppam ci bopp laata mu koy def nag journal bi nee nañu am na ay message yu mu yónnee ay jegeñaaleem doon leen ca wax ne ay bor yu bari yu mu amee ci ay pari yu mu def en ligne moo ko sonal CCPS